mbokk yi ñu sigg ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen ah tey la premier décembre 2019 Fallou Ndiaye moo fi woote Jokkel Maama Lamine isa jombi ba maar Diop a xool raa bi mbay guy gi nag moo génn fii yàgg maar gis mbay guy gi li mu defal Babacar jëlal ci ba ci suuf mbay guy gi la grand champion moo def moo def lii mbay guy gi moo def lii kon mbay guy gi nuyu naa la ziar la waaye coach su Jama moo def lii noonu la demee ci loolu sax waaye xanaa di sant yàlla rek gërëm waay Karim Mbacke Falilou waaw waaw mais maa ngi la gis sànq ba tey ngay mën a mën a a tee sa bopp waaw xam nga dëkk bi Sénégal ndeysaan lu waral ñami ñami waaw jàmm bëri Sénégal yi ñaan yàlla mu sax dàq te yokk waaw yàlla na sax waaw waaw waaw na jàmm ci sax dàq te yokk kenn du seet di nga suñu réew mi waaw waxal nee naa leen jamaa sax bu bu booloo nekk benn xol yi tàppe xol yi yéenante jàmm yi lu waaye am yéene ak di leen bëggee sit bi moom sit la waaw benn jamaa balaa moom nii jamaa waaw gars yi danaan jamaa nu war am na jamaa balaa ngi nii jamaa balaa ah, bëgg naa la balaa ci loolu jëm mooy si bor bi ah Seck daana ah Seck lay supporter ah, ah, supporteru Seck la gars yi Sall Bam Mbaye adversaire Boy Baol numéro 2 Boy Baol de Boy Mbaor Mbaor la de Bawol la nekk dëkk Bawol. ah tey da ngaa ñëw seetaan si te yow sa combat ñëw na ba pare de. ñu ñëw seetaan si gars yi am gën a xam. ah waaw ah. am na solo yaa ngi waaj. pare nañ. Ndiaye. Eh, Babacar foo toll yow amagoo combat wala. amagoo combat gars yi lay xaar. ko ku yaram muy laaj. non ñaari grand combat bi tey rek waaw bu ñu paree. maama la bi nag tokkee fi la bëgg a samp sa nekk. waaw bëgg a samp sama mbéy mi. ah pare rek. kon ci kanam Ndiaye. yàgg maar jaaxoon naa baa ngi nii. maa bàyyi buusi te bëgg naa. ay per bëgg naa la fay. ma am na jàmm am naa jàmm. ana waa géej waay. Ah, gars yi géej ñëpp a ngi fa. barki sëriñ buusi te ci lu mu ne. gars yi dañuy wax ci man. te looloo tax ma ñëw barki alxuraan gars yi dañoo war a wax ci man. gis nga li may mobiliser bu ma jógee géej waay ñëpp ay jóg. la gars wax ci man. on le na dama may sama sens. on du men barki sëriñ Touba Mbaye. on du diis yow. on le fou mosul diis. yaa wax lii sama sens barke alxuraanu eh, karim dama nekk ci yoon gars waaw yaa ma gën a noow. waay mu ngi ni diaspora bi ñëpp di ma bàyyi xel. ñëpp ay bëgg bu Siteu. waaw dundal yow bàyyi faal nga. amoon jàmm rek macha allah bëgg ci yow.

kantani yolota o góor jigéen ay ngor la may keba kantani yolota o góor jigéen ay ngor la may Bye. waaw ma woon na yow yaakaar naa ne. day gaaw daal day gaaw maa la ko wax. kon naa la fekk fii léegi ci kanam. amul problème maa la ko dig dégg nga. jaajëf jaajëf maa ngi lay fay. Babacar maa lay fay. jaajëf ngeen fi nekk waaw. waaw waaw Aliou Diop laa def laa def. waaw daaw la ñu jàpp. waaw Aliou Diop waaw. waaw laa ngi ci mbokk yi. ren am nga ko war a doon jàpp. ak saa yi. gars yi du ngeen di bàyyi rek. waaw xam nga gars yi am na mooy la ñuy wër. mooy loolu dafa am moom mooy moom. yow koo gis yow koo war a doon jàpp. waaw gars yi bare na. dama la wax combat la ak saa yi. waaw. yaa ko maam maam ak jàpp waaw loolu lañ ma sant. def tekk tekk wala yoon. waaw bul def rapa. dégg ko cax baabu. maa koy daw sori bu nekk. da nga koy sori. ah. donc doo nangu mu waaw toll na foofu. mais instant bii nag dal rek. dal rek. waaw yaa ko léegi rek. incha allah ci kàddu la amateur yi xamee woon waaw commencé xeex bëri. waaw loolu yëpp nañ ko xaar. bis la boo xamante ni bis bi dafa am kañ si des. waaw ñu ñaan suñu borom defal ñu tax. le premier ba le 31. décembre. waaw waaw mooy lii. tey le premier décembre tey le premier décembre. ndeysaan naar naar yaa ngi waaye man ma gànnaar gànnaar yaa ngi nii. ndeysaan lu waay waxoon na ca dellu. oh oh avec la manière. yaa waxati lii maama. waaw waxati lii Babacar. maama ci kanam. ah léegi léegi. dañ koy écho. ah boo naataangee. borom lamsaara gi. borom jamono si gàmbaaw. maama Lamine doomu ndeyu Balla Gaye Junior wala tax na ci boppam yaa ngi ñu karaa na di jaaw ana ka do junu lay bege yi jom ñaaw wala daanan di jaar yooyi man dama lay woo wooyi gewel di way wara way sos lay woo ba tey sos la daanan di jaar man dama lay woo ba tey

Talla Ndiaye maa ngi lay daw na dóor jëli na ko ñu ngay xeex eh dina ko dóor mu daanu eh dóor mu daanu ay waay lii metti na duma na ko daan na ko ay waay yàgg maar yàgg maar lii metti na ay waay waay waay waay waay waay lamb waay dóor ci kaabaab ba nga kaw tañu xalab la sànni la ndeysaan ndeysaan koo bëgg a yëkkati de yëkkati la la de dalaa bëgg a de gis nga de da lay yëkkati de dalaa bëgg a daan la de wër na la ndombo de mbaa la daan mbaa di nga jóg foofu waay waay dina ko daan da daan wala daa bañ yee wër na ko ndombo yëkkati wër ndombo bu yàggee di nga daanu de loolu mu ne su cee yàgg wala di nga ci yàgg mataara nga yéer xool arbitre ba xool arbitre ba na mu wàcc na mu wàccee moom it def na kaat appi waaye arbitre def na kaat appi waaye mataara nga yéer mataara nga yéer daanu na daanu na daanu na kay daanu na daanu na ko mais champion bi bëgg naa saarati ba am nga jàmm ana waa Kër ma ñëpp a ngi fi a ngi fi tey mel da sawar de tey ama na maa yaaga sawar nag noonu la demee barke yàlla di ñaan yàlla may ñu ndam ah. kese waa ji lu ngeen waxante sànq. waa ji dara ñaa la ma wax ma ne ko tarkindaa rek waaj ji nee nañ nag su ma ko daale nañ koy rey ñoom ma ne ko nañ daas. da nga koy daan. loolu bi du la fanaan. noo koy daane. ci kanam tuuti dina leer. day gaaw wala da yéex. làmb la rek mais man de bëgguma mu yéex na bu ko bëgg a patam patamee ñibbi incha allah rabbi jokkee la ngi. maa ngi nii borom Fatick. maa ngi borom cosaan lii la làmb lii mooy dundal làmb daal ah ñaan yàlla rek dugg ci saison bi ci bismillahi rahmaani rahim yàggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin waaw loolu day la presi wax mais c'est Papa Sow dama laa dégg nga ne nar naa yëngal Sénégal loolu lu leer laa la wax promoteurs yi njëkk nañ ma fi am na ñu ma fi jiitu lu ne def nañ ko fi je suis d'accord mais ca signature ya ca open press ya di nga ci gis loo xam ne mosoo ko gis ci làmb lu bees taq ay surprise taq pressé ngong presse si soxo mais Babacar Leewtoo ñu ngi lay Yékini Junior Sa Thiès su mu toll loo ko ñu ngi si Modou Lo Ama yaa ci Modou Lo Ama moom laa bëgg yow presse waaw mel ne lig ni ko laay ko doon dox man presse laa loolu laa bëgg xaw ma lu yàlla di def nag. yaa ngi koy dox. waaw. wax nga ak waa Kër Ama. balaa mën a yem su demee dama ba ne bëgg na dara. wax na ñaari cas yëpp baax na. kanji doomu ndeyu Waly sek waaw loolu dëgg na loolu yàllaa ko def. kanji magi Waly Seck. loolu ya waaw loolu moom dëgg na. kanji soppe Sidi Diop. waaw loolu dëgg na. kanji soppe waa réew mi. borom la 10 janvier. waaye borom le 10. maa la ko wax de le 10 jëm Grand Théâtre. le 10 ca Grand Théâtre. ak Sidi Diop ak Leewtoo. ak Leewtoo. ak PDG Diaw. Pape Thialis ca biir. Pape Thialis ay day ñëw. jaw ay diggeel ba ah yow tamit jaw ay kañ yow it nag kooku sama xarit la bi ma koy xam maa moom lii lépp amul. te loolu doy nga ci mais ñu ngi ci woo ñëpp Sénégal gépp nañ ñëw. la vingt 29. dafay. du le 29 ngay ñëw. le 29 incha allah. diggante Alioune Sèye Junior. Tafa Mbër. loolu nar naa neex. def nañ ca Demba caw booy Jowaas Joomaay booy bokal booy bokkal caatu montagne bébé guy gi. caatu montagne bu faas. waaw bébé guy muy combat yoo xam ne. doy na foofu. non des na yeneen. taxawal foofu. mais incha allah le 29. dañuy wane waat suñ boobu rek comme le 29 ci la ñuy tëj suñ stade fii ci la ñuy quitté. te am na lu ñu tàmmal Iba Mar lu ñu tàmmal amateur yi dinañ wane suñ bopp le 29 bu baax a baax incha allah. laa ilaha illallah yaa kuy sa mag Modou Awa bu la neexee nekk mbër. saan ñoo nga ca ay waay Matar Ndiaye. ñoo nga ca de. laaw loolu baaxul bekaay bekaay laaw wóorul bekaay bul di laaw ndaysaan ñaari mbër yaa nga ca de ñaari mbër yaa nga ca yaa nga ca de ñu ngay xeex de ay waay ñu nag tëggkat yi xeex ñu ngay xeex ñu ngay xeex ñu ngay ñu ngay xeex dina ko dóor mu daanu dina ko dóor mu daanu eh Bécaye Bécaye ak trompeur laa ilaha illallah koy boot Bécaye dóor na ko le waay trompeur ak Bécaye waay trompeur ak Bécaye trompeur Bécaye oh combat bi metti na waaye trompeur waay trompeur ak Bécaye door une deux loolu dal na de trompeur yow mii tey jii trompeur daan na ko trompeur daan na ko eh ko trompeur trompé ko trompeur daan na ko gaa eh eh, eh ko trompé na ko yàgg bi lu ko dëgëral Babacar daa am ñu topp sunu ginnaaw tey amuñu droit def erreur tey dan maa yëpp doo ñëwoon sama kër tey xam na caaxaan waruma ci combat bi te combat bi doon woon bu may per parce que Rasulullah day metti mais doon ma ko woon per tam lekk sama ginnaaw ku ci mel ni sama kotu per ba def combat bi dama ko seere loo ginnaaw yàlla dama ko gañe moom moo tax billaahi Babacar lii lekk laa mën na am ndam tey billaahi kontaan naa Babacar kii li mu liggéey xëjul ci fii ba suba du xol bi dara du ci yëngu du sol moo tax ma ne ko xëj ko xëjtal combat bi booy bi day leese puisque ndaanaan la bërekat la te am na doole liggéey na comme yow mais xëj ko yaa ko ëpp xol débat lamb lu yàgg la parce que dañ daan dégg Jokal di dégg Fatick di dégg Jokal di dégg Keba Kanté tey muy bëre sa drapeau ah, waaw di ñaan yàlla que le maire gagne mën a wax que le maire gagne mën a wax loolu laa waaw mais noo xam ne Fallou boole na ñaari xale yu doy waar sax ñoom ñaar suñ ko tegee suñu yoon tey làmb war naa neex amateur yi suñuy ñibbi war nañoo mandi làmb. stade bi tam fees na dell macha allah. daa niroog man rek borom bés bi waaw. Kéba borom mouvement bi. sunu ëllëg waaw ñun sunu ëllëg ñun ñëpp si lañ bokk. maa nga ca biir. waaw ñun ñëpp suñu ëllëg la ñuy waaj. kon nañu ànd waajandoo ko rek dem kontaan naa. Ndeysaan huitième combat de la soirée. Petit Baye Fall à Modou Yacine à droite la ilaha illallah Modou Yacine Petit Baye Fall arbitre baa ngi wax ak ñoom baa ngi wax ak ñoom waa ndeysaan Double Moteur moom jaxase na géew bi di yàgg jëlal loolu qualify topp na ko Double Moteur bari na coow way yi neex na waaye bëri wuñu de. waaw dañu moo gën de. nañu ah, bàyyi mbay ak way. nabu li muy way neex na. dix millions àll la noppil looy jooy. dëggum <laughs> jur séeréer la eh way. eh way. daw na jël ko. wàcc na dóor ko. laa ilaha illallah. Modou Yacine. Modou Yacine bettoon nañu la daw na jël ko daw na jël ko Petit Baye Fall jël nañu ko Modou Baye Fall daan na ko oh Modou Yacine Modou Yacine daanu na jël bañ la daana ruy waay waay Petit Baye Fall waay oh ko waaye John Sina bañ na Buubu Diom John Sina mbëru ñoo joor la Cheikh Tidiane ñaa ko andi da koo bëgg a dana ko xar daan ko daan ko daan na ko duñu benn eh waay eh waay ay ay ay fata ñof waay eh, o a goore ne xala baale fata ñof arbitre combat bi arbitre yaa ngi taxaw kaay ndeysaan xoolal jokkeel jokkeel a ngonguy sotte ko laa ilaha illallah maama Lamine ak jokkeel xool suul bi xoolal xoolal xoolal fii xoolal xoolal waa kër Jokkel waa kër Maama cey loolu du yomb de xoolal jëlal ndeysaan Jokkel a ngongu xoolal li mu sol ci bopp bi xoolal li mu sol ci bopp bi xoolal li mu sol ci bopp bi ndaysaan jokkee la ngoo ngay dem yóbbu sangooram utali maama Lamine arbitre ne na ko deux ñaar ñaar la ko wax règlement xool maama Lamine mu ngay sotte ko moom Abdou Seck ngongu taxaw Père Max Mbargane ñëw na ca géew ba Père Max sa kaay maar maar takk jokkee la takk mu ngoongu sukk benn um bi waaye yàgg maar nuyu naa ñëpp yàgg yàgg jokkee la ngir di takk ndeysaan lii moo tudd naan ci tubaab. dëggantaan lii moo tudd <laughs> Babs lii daal. doy na waar benn jeune bi day ci suuf. waaw ñoom ñaar ñëpp dañu rappel ku ne la ngay takk sa morom ma ngi koy takk. waaw doy na mun a ñàkk. waaw est-ce que bokkuñu sëriñ. Ah, ay séeréer dëkk xam naa ne moom lañ. mën naa ne de. ñoom ñaar ñëpp séeréer lañu de. waaw te keroog ca ca face to face bi. ca 2 dafa mel ne dañu làngoon. waa ji kay ay séeréer moom laal nañ ci. dëggantaan. maama ngooŋooy daw ak ndaala. maama ak ñàkk sa waaye maama Lamine ak Jokkel waaye yomb ñaari mbër yi maama Lamine ak Jokkel Jokkel a ngongu wane ginnaaw am na luñ koy jox am na lu ñuy jox Jokkel xool per Max Mbargane ndaysaan ñaari mbër yaa ngonguy ñëw jël ma maama Lamine maama ngongook ndaam waa maama loo yenu maama tontuuma ndays non jox waa Lamine jox ma ruus balaa ruus balaa bi jox ma giri kaña bi Lamine li nga sor rafet mi tojal la tojal ah biit xanaa. tojal tojal tojal ah, damay tojal na. ah nara jàpp. mais giri kaña bi ku la ko jox Pape. déggu ma. ku la jox giri kaña bi giri bi. giri kaña bi de ma ko jox. mbay guy gi chaque année mu sonal ma bu lu son non borom baax la man mii ay dàll damay jox ay ba ma rus wallaay kenn moom daal mu ngi noonu ah, am na war na am jàmm de commerce bi muy def daal yàlla na ko ko yàlla fulal amin amin comme comme ça ñu ko ñaanal ndam ñu ñaanal ko a may ko xaalis mbër yëpp lañ fi nekkal waaw waaye daal yàlla na am ndam ci commerce bi muy def noo gisee Mama Lamine ak Jokkel ñoom ñaar ñëpp pare waaye Jokkel nag daa mel ni mu ngi ci lamb ji de ah. waaw tekkaaral bee ma ci jaaxal de waaw am na waaye nag daa mel ni ni ma ko gisoon 2STV ak ni ma lu combat bi gën a dem muy gën a nekk ci biir daa mel ni psychologiquement daa am lu muy imposé Mama Lamine. ci ci li mag ay nelaw de. cellaw cellaw cellaw wax la Lamine. ah cellaw wax la. Mama Lamine est-ce que ni mu daan bëre la war a bëree combat jeexal ci une minute. non non non kii da ko war a maanaam waru ko jox cëru ba du moom mais na ko jox cëru xam ne mbër bu mag la lu muy def na wóor. dégg naa ci bu mu làmbatu. bég naa ci yow. maa la gën a bég. kenn du yow. yow soo bégee ma bég. ku ma ci yow mere ma. man mii ku ma ci yow ba ma. ndaysaan ñu ngi leen di présenté tey la premier décembre 2019 Fallou Ndiaye ñu fi woo Matar ju fay arbitré daa mel nii Jokkel ak Mama Lamine waaye lamb ju yàggoon na yoon yàgg mar lay jeex na tey lu waay doon jaay day lamb tey wasin ba dem tool yee yàgg maar Mama lamin à droite Yagmar Jokkel à gauche leen di seet passe visite yàgg yàgg lamb ji ba ñu koy wax ak tey yàgg na Yagmar Yagmar lamb ji bañ koy wax yàgg na Yagmar yàgg nañu koy wax maa ngi nuyu Birino bu 2STV le meilleur caméraman kenn du Bruno mooy sa chef yàgg nangu nga. dëggantaan waaw. waaw ku la ci néeg bu la moo lay fi nga. bu la nga ca. waaye nuyu naa waa Liberté 4. waa kër yàgg maar. maa leen nuyu. képp kuy suivre Leewtoo bëgg naa la. tey la dimanche premier décembre ma ngay wax ak ñoom. ay waay Matar Diouf ay arbitré combat bi jo nuyu naa la mama ngay ñaan jiital pied gauche mama ngay ñaan jokkee nga ngay ñaan yàgg ñaari mbër yaa ngoonga mama jiital pied gauche jokkeel pied droite ndeysaan bu leen jaawale lii de loolu lay bañ Abdoulaye Mbaye ca États-Unis sama soppe boobu nuyu naa ko ndaysaan ñu ngay lewaatoo lu mu bëgg a def moom Jokkel dem taxaw ndaysaan ñaari mbër yaa ngay lewtoo maamaa ngi dox ci koom maamaa ngi dox ci koom ndànk Jokkel daw na jël ko maama dóor na ko ee Jokkel jokkee sa dugub boobu baaxul maama daa dajeeg moom génne koo xeex maama nga ko topp rek ndeysaan eh maama Lamine a ngi nii tarkindaa bi D'artagnan door ko Jokkel moyul xeex mbaa door mu daanu du fi am ca kaw maama daa bëgg a wàcc da koy daan da koy daan daan na ko aaway ah duñu benn duñu benn yàgg maar la ko rimaseen yaa metti waaye loo ci mën a dégg moom jàppal ki nga xam ne nii moo di maama Lamine la mu waxoon jokkeel la def dama lay daan dama lay daan dox na ci kawam xeex ak moom jàpp ko daan ko wan ko ne maa la gën a pare kon nag jokkeel xoolaatal sa bopp xoolaat sa taxawaay ci làmb parce que xale nga li ngay entraîné est ce que baax li ngay bëree est ce que baax na maama Lamine nag fi mu ko teg yaakaar naa foofu la ndax mbër yi ñu koy indil ay mbër waa lañu te da leen di daan ni mu ko neexee te mu yoonam kon lii moo fi amoon waaye lacrymogène yi metti na sama bët yaa ngi jooy tarkindaa may guy gi may guy lépp moom la waaw moo fi jaar guy gee def guy gee ko wax ko ay waa leewa too bari ñoom nga leewatoo tey la li wayal way sama nday xoolal leewatoo dafa doon bee gerte gi ee eh, wala ñu niin ko dege daga wuyoo jar ji jar ey leewatoo nii xuliyeenam sukkar si dox dugub du ko saakene leewatoo ger ku ko saakene wayo de leewatoo tagal dañoo taacu tey ma ala leewatoo tey ma la li wayal